màggaluk Tuuba gi ñu bari amoon nañ ci am tiit waaye tiit googu nag mujj na ci xel yi dal euh, ndax gannaaw fukki fan ak juróom yoo xam ni màggal gi romb na mooy li ñuy wax euh, période d'incubation jàll na euh, kon nag li ñu doon tiit ne jàngoro ji mën naa law gannaaw màggal gi loolu amul ba tax na loolu dalal na xelu ñi nga xam ni ñooy fajkat yi ca Tuuba Marema Diop. li ñu doon tiit mujjwul am màggal gi yokk yokku cas coronavirus bi fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci docteur Mamadou Dieng ndax boobaak léegi tendance bi dafa baissière waaye nag teewul mu ngi xamal ni autorité ñu ngi def seen kéem kàttan ba fi ak fan yi di ñëw ñu mën a gaaw détecter jàngoro ji bu dee am na waaye it tamit teg ab dispositif de surveillance bu am solo docteur Mamadou Dieng mooy médecin chef de région. am na fukki fan ak ñeent waaye li ñu seetloogum mooy gisuñu benn cas boo xam ne yokk na ci. ñu ngi saytu di xool di déglu waaye li ñu mën wax tey. tey fii ñu toll mooy jeexitalu màggal gi ci transmission bi tax ko am solo ndax ak léegi tendance bi nga xam ne moom la ñu seetlu muy wàññeeku bi kaay di wàññeeku moom muy wéy toujours. mu ne nag bu ñu demee ba Touba am taxawaay bu ni mel nañ ko santé disposition boo xam ne jël nañ ko ci diirub màggal gi yépp waaye itam taxawaayu xalif général des mourides ngir xeex jàngoro jile. loolu nag dañu ci jiital.